jërë ngeen jëf mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah xam ngeen ni kon egg si nañ si euh, bis bu màgg bi niñ leen ko doon waxee boobu ba léegi di bis bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké woote na ko di euh, bisub Zikrullah xam ngeen ni euh, fii si Daarul Minan yéen a ngi dégg sikar si foo leen mën di toll rek doon nag kuréelu ku boppam gi ci biir ak kuréel gu mag gi nga xamante ni moo ngi si penc mi sëñ Mamour fii moom kenn mënu kaa nettali lu dul rek nit da siy teg sa bët seen spécial Jazboul Mouride tey xam ngeen ni fii lañ ko fas yéene defee ci daarul minan kër Cheikh Mouhamadul Mountakha ci bisu kar bi mu wootee di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te di ko ñaanal sëñ Amdi Fall moo Serigne Modou Mbende Fall moom it mu yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Mamour. jërëjëf sëñ di la jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem euh, kilifa yi nga xamante ni bii gis nga bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha sàkku na lii ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. kenn ku ci nekk ak foo ay mën a nekk da nga faa bàyyi ko ñëw ci bis bii tey àllarba ji la sëriñ bi waxoon loolu lañ jëfee eh, tàmbali nañ nag sikkar si ndax sëriñ bi waxoon na ne bu 16h jotee ci ngoon buñ ci teg benn minute waaye eh, ba 16 jotee rek ci lañ daal koy samp defe naa ne biñ koy wàccee mooy bi ñuy noddu biñ noppee ñu yëkkatiwaat ko te loolu lañ fas yéene incha allah fanaanee ko ba suba ñu yendawaat ko ba waxtuwaat eh, bii bu sëriñ ne waxtu wuñ ko war a wàcc jot na waaye gis nga ne waxuma la njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye wëllëre yi ak kilifa yi ak kilifa yi sant Mbàkke tey foo sànn mbatt mu takk gis nga sëñ Moussa Nawel léegi ñu dugg si gis nga mboolem njabootu sëñ Tuubaa Seexul Xaddim kenn manqué wul am na ci ñoo xamante bii ñi ngi toog seen i kër fi ne di dund si kër si ndax xam na ne télévision yëpp ñu ngi ko def en direct lépp rek ngir euh, bëgg barkeelu ci jëf jure ji nga xam ne euh, na ko euh, lépp rek ex wane ak feeñal liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine ndax Cheikh Ibrahima waxoon ne yoon wi sëñ Bamba bi ku ma jéggi weesu nga digg ko assuur maa ngi loolu la sëñ Muntaxa taxaw ngir feeñal ko ndax turu yàlla bu ko sàkkoo ba pare na Cheikh Rafal da ci am tur bu yaatu ndax lam sàkku woon mooy dafa wax ne dama bëgg a sant sunu borom ci boole gi mu wër sëñ Tuubaa ma bëgg ñu santale mu ko ak turu yàlla waaye dama ko njukkale maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride bi gis nga boobaak léegi tur ci njabootu Cheikh Rafal gépp ngi toog mboolem Cheikh yëpp kon nag noo ngi ñaan bu baax a baax di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha yàgg fi ci barke tur wi sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall Mbenda mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal bi mu yabal ak njabootam te kenn manqué wul ñëpp ñëw nañ dafa tàmbale kër Cheikh Modou Moustapha Fall ba ci kër Ngunda Sa bi nga ku manqué ku des Cheikh yëpp ñëw nañ wëllëre yi ñëw nañ waaye nag i ndénkaan yi nag léeg-léeg nga daje koo xam ne da ngay xam ne fële lay wuyoo waaye Cheikh Ibra Fall lañ mënta mun ni ma yeew ci nagi ndenkaan ci gétt jàmbur yi Cheikh Ibra ne su ma ko yeewoon gétt yi raaf ndax sama yëkk yaa ci gétt gaa bëngeelu ñooñu tey boo doxee ci biir gis leen ci kenn ku ci nekk ma nga laxasaay man gis naa ñooñ sax njabootu Sëñ Tuubaa Seexul Xadim kenn dox seen digg ak Sëñ Tuubaa waaye tey seen dara ngi seen digg ña ca Samba waaw ña nga ca sikkar say wër waaye loolu lépp day wane ne kon la ñu ñu tudd ko waaye waaye waaye ndax damaa xam cër bi maam Cheikh Ibrahima Fall am ci tur bi te tey loolu feeñ na. sëñ Mamour jërëjëf yamul si wax li ni mel. waaye daa génn toog jàkkaarloo kuréel gi mbokk yi ni ngeen koy gisee nii si image yi. Cheikh Mouhamadul Mountakha ci taar bi ci mbaax gi ci wilaya gi macha allah yàlla sunu borom gën yàggal xam ngeen mu ngi nuy toog jàkkaarloog kuréel gi ñuy yëkkati euh, turu yàlla wi. mu koy dund kon ni ko waa kër maam Cheikh Ibra di dundee waaye kon ni ko mboolem mbokk julli di dundee ni nga ko waxee fépp rek si àdduna bi ndax nag ñëpp a ngi koy def en direct di ko dund waaye sëñ Mamour li gën a yéeme nuñ koy dundalee fii ci biir réew mi moom lañ koy dundalee fépp si biti réew waa France ñu ngi koy dundal di ziar bu baax Serigne Cheikh Fall Khady Gueye waa Amérique ñu ngi koy dundal di ziar bu baax Serigne Manel Fall waa Italie waa Espagne waa Portugal maanaam waa Turquie bàyyiwuñ benn kuréel ñu ngi koy dundal fépp si biir adduna bi ndax nag sa ñëpp laat moo waxoon fépp waay nekk di doxal ni mu waree jàppal ni sa foofee def nañ ko muy sëg Touba kon nag fu ñu mën di nekk rek tey wéyee ndigal di bàyyi tere yi mel na ni ñu ngi si dëkk bu sell bi di Touba. Ah, waaye am na saa lu xew. waaw mooy am na ñoom dañoo jël vol vol jël avion ngir ñëw fekk si. ku mel ni sëñ Manel Fall waa daayiratu Abraar di club house di ay jàmbaar lool di ay jëfkat kilifa yu bëree bëree bëri bokk ci biir mbooloo mi sëñ Manel moo fi teewal moom États-Unis la bàyyi ko fële ca Washington eh, ñëw na barki ci guddi ngir fekk si turu yàlla wi bëri na ñoo xam ni ñii Barcelone lañ bàyyi ko ñii Italie ñii France ngir ñëw fekk si jëf ju ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall lii ba àdduna di am ba léegi gulet lañ a wax ndax itam wax dëgg ñun day man maa ngi fàttaliku fekkewu ma waaye 1963 koro ba jumaa ji yeggee sëñ Fallou ne ko xam soro bi nu ma ko tuddee ñëpp ku ne xel xel xel lu ne ñu xalaat ko mu ne sama baay Cheikh Ibrahima Fall ngi nii man da wax dëgg fekkewu ma loola waaye lii ma mos moom nuru na ma la ma mag ña waxoon dafay mel ne kon sëñ Cheikh Mamadou Moustapha dafa feelu Cheikh Mamadou Fall ci jëf jooju nga xam ne sorol bii ci kaw Lamp Fall bépp ko seen mu tudd ko maam Cheikh Ibrahima Fall jëf ji itam ci turu yàlla yi àdduna dootu yàgg mukk bañ fàtte ko ndax jëf ju la fàng la loo xamante ne bi yoonu mu gépp nga dund waaye lislaam gépp nga dund jabot Sëñ Tuubaa gépp dund àdduna bépp nga koy dund tey ndax site internet yi télévision yi ñëpp nga def en direct ñuy samp tur yàlla yoo xam ne te tur wi nag la ma wax de amul daray folklore amul daray caaxaan tur wu wér dañu tudd laa ilaha illallah joo xamante ne bii ñëpp ñi ca kaw dañ koy dégg ñi ca suuf da la Cheikh Mouhamadou Mountakha Sakho yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ànd ak jëwriñ bi Serigne Abdou Fall moom Serigne Modou Mbenda mbokk yi kon ñu dox ko incha allah fas yéene kaa wéyalee nii ba suba si waxtu wi neex dem neex na suñu borom mbokk yi kon ànd ànd ak yéen teewlu Zikrullah wanalee leen ak kilifa yi jëlal leen yenn si ay interview te dellu siwaat ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. moom bis la boo xam ne benn bés bu ko féete kaw ci yoonu mbon yi du laahi ci lislaam sax amut ndax bis boo xam ne xalifa général des mourides Cheikh Modou Mountakha yal na ko fi sun borom bàyyi moo jàpp bis bi ngir ñu njukkale ko Cheikh Ibra di tudd yàlla waxtu ba waxtu wa dellu siwaat ëllëg loolu mës la am ba jamono sosoo ba tey loolu mës la am te Serigne Touba nee na fu kullu man saalani fa lii jawaab xabla wadaatu jaadulu ahlul kitaab baat bu ne lu màgg màgg baatub laa ilaaha illallah moo la ëpp doole gën laa ko we Serigne Touba nee na ku ko weddi demal caw la jëkk wala sikru lay akbaru wallaahu yaxlamu maa tasnahoona kon bis bisu paju aajo la bisam ngërëm la. di bésu Cheikh Ibrahima Fall ñu defe ko ci Touba fii ci Darul Minan di dëkk boo xam ne kër goo xaye sëñ Touba ko sancoon rafaatale ko Cheikh Mamadul Basir tey doomam ji nekk fi di xalifam sëñ Touba woote bésub Cheikh Ibra kon Mbàkke duñ man lu dul sant ko ak ñaanal ko ndax bés bi moom mooy bésub faju aajo ci saayir ak ci baatin kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñaan suñu borom yàggal la fi lool te nga dëgër bay mbay sëñ Muntaxa nag daa yëg ca yëgukaay ba moo tax mu delloo bàtt ca ca ca ca ndaa la maanaam turi wi mboolem li bàyyi ko ci sunu borom jëm si ci jaam ñi moo ci gën a màgg tur yàlla mooy li gën a màgg loo xam ne leneen lu dul moom rek mi ngi ci suufam loolee gën a màgg sëriñ bi da daa yëkkati ki gën a màgg ci moom muy Cheikh Ibrahima Mouride mu teg ko ci loxoom nga xam ne foo dégg tur yàlla sam xel dem ci moo tax bi sëriñ bi di sant la boromam daa wax ne nañ tudd turi bi te njukkale ko Cheikh Ibra nag Warna dal xelum koyakar ku yakar Cheikh Ibra warna koyakar sedd xelum ku yakar Cheikh Ibra waaye war naa doon ak laxasaay gu la wat ndax dégg na seigne Mamour mi wax ne seigne moutakha da waxone ne Baye Fall bu dëggal bu ne moma gënal sama bop waye bu ko deg doog baye mu jàll xolal seigne moutakha moy kan xolal nim fonki boppam fi fi ko pastéefam yóbbu ngir xam bopam fofé mu toll nak fofé la yegene Baye Fall bu dëggal moko gënal bopam kon Baye Fall bëggal mooy kan te nun ay Baye Fall lañu waye kon liñu déssé suñu digënté yegg fofé moy dolé dëggal rek waye kon yàlla nañu carafal gindil bopam waye ñi ngi sant ba baax sëñ Mamadou sëñ bi naka ngeen taxawoo bis bi di bis zikrullah bi nga xamné Cheikh Mouhamadou muntaha sant nako njabotuk sa mam Cheikh ibrahim Fall Baye ak kay jërëjëf sëñ assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki taalibi yi nga xam ne ñu ngi ñuy ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar ci fii ci kër Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifab Serigne Touba waaw mu mel ni nag euh, liggéey bii nga wax nga xam ni jësbul murit sëriñ bi sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall mi nga xam ne moo toogee jotaay suñu maam Cheikh Ibra Fall ñi ngi koy nuyu te di ko siyaare te di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak ku wér moo sangam bii ci biir di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachirou nga xam ne mooy ki nga xam ne moo xam wàccuwaay yu maam Cheikh Ibra Fall yeyoo ba séddu ko ko ñu ciy sant suñu borom nag te di leen ñaanal ñoom ñaar ñooñu ñu yàgg fi te ànd ko wér sëriñ Mamoun mu mel ni li nga laaj dafay lu am solo daayira Jazbul Murid sëriñ bi daf leen doon liggéeyloo ci biir euh, ndigal li nga xam ne dafa rot jugee ci Cheikh Mamadou Mountakha mu wax ne dafa bëgg a sant suñu boroom sant Cheikhul Khadim te jaare ko ci baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi te njukkale ko nag maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne lawlaahu kenn du jariñ ci Serigne Serigne Touba mu mel nag Cheikh njëkk a ñëw maanaam mooy xalifab Serigne Touba bi nga xam ni mboolem yi nga xam ne dafay ay njariñ yu nëbbutu woon sunu borom dafa def tawféex jaarale ko ci moom mu fas yéene leeralaat loolu ñëpp ba àdduna bépp man cee jariñu bokk na ci li nga xam ne defoon na ko fi ci jamono yee ñu weesu muy bisub xasida bi nga xam ni daf ko kenn ku ne xam ne xasida murid yëpp a ko maase fonk xam li muy jariñ waaye nag Cheikh Modou Mountakha soññaatoon ci murid yi ngir ñu dolli seen ak seen pëste ba tax mu dajale woon mboolem nit ñi ñu taje woon fii ci Touba yëkkati eh, jàng fi xasida yooyu gis nañ tam la mu jur muy jële fi mbas mi woon ci réew mi indiwaat naataange ci réew mi tey jii nag mu dellu siwaat ci lu mel noonu li mu dellu si mooy lan baatub laa ilaha illallah bi nga xam ni lu di wax ci aw làmmiñu mu ciy génn rek laa ilaha mooy la ci gën loolee nag sunu borom moo ku njëkk wax ci alquran ndax dani wala ak akbaru kon si tudd baatub laa ilaaha illallah mooy li gën a màgg ci luy génn ci gémmiñu doomu aadama loolee nag sëriñ Tuubaa tam indiwaat ci leneen loo xam ne ñun dañ cay jaaraat gën a fonk bis bi ndax dafa wax ne ama dawaamu sikru fa ak baru min kulli ma kaana al muridu yuksaru nee na maanaam baatub sikkar day mooy li nga xam ne mooy li gën ci li ab murid di bari wax ne xat qultu zalika bila israari wala ubali bi zawil inkaari nee na loolu man maa ko wax man cheikhul xadim te xa maanaam moytuuma ci kenn ku jóg di ko weddi yëmu ca da ca da caa teg ne fa kullu man saalani fali jawaab xab la wala tijaaduloo ahlul kitaab nee na ku ma ci laaj nag am naa réponse bu la ci tontu bu leer nañ nee na mooy euh, wala zikrullaahi akbar gi nga xam ne moom la alxuraan andi woon. kon nag mu nekk loo xamante si ni bii sëriñ bi àgg na ci ne képp koo xam ni gis ngeen ko muy génne ci gémmiñam baatub laa ilaaha illallah bu leen ko jàppe am noon kooku yéen matu leen am noon loolu mooy falaatu haadoo man ra'aytum faahu yuxriju laa ilaaha kon mbir la moo xamante ni bii Serigne Mountakha moo xam wàccuwaay bi xam dayo bi mu delloosiwaat ñu ci. su ko defee nag loolu lim ñu war a jural mooy ñu góor góorgóorlu ci fas yéene taatan ni ko sëriñ bi bëggee maanaam li ciy wàcc ci ay leer ba man koo jariñoo te nan lañ koy defee mooy tënku ci teggin ak ak akuk dal ak sago su sëkk loolu mooy li nga xam ne moom la ci sëriñ bi bëgg. Euh, sikar nag ñu xam maanaam xasiday Serigne Touba yi nga xam ni maanaam Serigne bi wax na ni egg ci wax ni karamati xattu yedi neena man samay karaama moy sama bindum loxo khassida yoy nak ma ngi len di xamal limi mag mag bu fekkon ab taal la manam mat matt ma koy xamb ba mu yànj bañ man ba yegg fi mu yegg lolé moy baatub la ilaha illallah kon nañu ko masé xam ñun ñep dem na ba sëriñ bi waxna fa kayfa yansa aw yu xaafirul wara zikrul lazi khalaqahum wa sawara ana nan la nit ki di sagane ci manam tuddi ki nga xamni yow moy ki la bind te melal la ni nga mel teg ci ne li annahu bidayatul wilaya wa wa tarkuhu nihayatul xawaaya maanaam baatub laa ilaha illallah mooy tàmbalikaayu bépp wilaya waaye nag sàggane ko woyofal ko fàtte ko nee na maanaam mooy daytalu mbewte maam fi nit ki mën a yem ci mbewte kon loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko cee tënk waaye nag ma ma ci soññ sama bopp di ci soññ ñëpp ñu xam ne bis bii war nañ cee fasal Seex Muhammadul taxaa fasal ci jëwriñ maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ am di Modou Mbenda seenu yàgg ak seenu wér te bis bi attan nañ ko ginnaaw ko Serigne Touba ko ci fasee danañ ko am kon ñi ngi nuyu ñëpp nag mboolem ñi nga xam ne ñooy bunti këri maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyiwuñu kenn ak kër sëñ Saliou Fall jëwriñ nekk nga xam ne ñoom la sëriñ bi di liggéeyloo liggéey bi kenn ku ci nekk ñoo ngi koy fekk fa mu nekk di ko siyaare te di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex ak liggéey bi te defal nu ko nun ñëpp yegg si leen ak jàmm ci seen dal fal Info moy seen seen bi ngeen xam ne moo leen topp bépp yëngu-yëngu sëriñ bi ak ndigalu sëñ bi joxe ñu man leen ko jot jottali boo bëgge top suñu vidéo ana nan ngay def da ngay bëss fofu ñu la bindal abonné so paré nga tek ci bëss kolos notification bi mooy waral bépp vidéo buñ duggal nga man ko jot dal fal Info moy seen seen bi jaamu seen soxla